fii ci diwaanu Kër Massar quartier bu ñuy wax Cheikh eh, ci fi nga xamante ne nii fii la tiis wi ak naqar bi xewee tey ci suba ñu ngi nag toog ak kenn koo xamante ne nii ci dëkkandoo yi la eh, soxla si ñu ngi lay nuyu bu baax a. lay fay bu baax. Eh, ndax mën nga xam moo xew fii ah, xam sax bëriwu ci parce comme guddi la woon te boobu ñëpp tëdd nañ dañu coow rek dañ dégg biñ déggee coow tamit. kenn ko ne xam na kii bii wax mais kenn ñu mën ubbi kenn ñu ubbi man après dama si parce que boobu trois heures ñu ki ñu ki ñoo bokk kër. bokk benn hmm. dëkk ci suuf moom mu dëkk ci kaw. ci kaw waaw. naka lañ ko reyee ak euh, buree bi su ngeen koy expliquer naka ngeen ko yëgee ci guddi gi. effet bu ko wax parce que gisuñu dañu dégg rek. Hmm. dégg rek mun naa ne ubbi leen ba buntu bi bu ngeen ma ubbi buntu dinañ ma rey. Hmm. instant boobu kenn mënuñu jóg parce que ñun ay jigéen lañ waaw maa ngi sama borom kër ñoo ne ci suuf kenn ñu ma mënuñu jóg sama borom kër sax dafa nelaw comme man damaa guddee tëdd man ma dégg coow li mais ñi ma maa génn après la benn cinq minutes dix minutes déggaatuma coow. dégg nga mu naan ubbi leen ma bu ngeen ma ubbi leen danañ ma rey. waaw dégg ngeen mu doon tudd tur wala. non tuddul kenn du doon fëgg moom mi doon fëgg buntu kër yi ba buntu kër dañu koy tëj tëj ci kaw tëj ci suuf moom ubbi na ci kaw mais ci suuf nit buñ la ubbi luñ doo dugg xam naa instant bu ne ko fekk nag bu yeggalee seen seen euh, na lool wala. ah xam nga trois heures man de damaa jógee marché du ko yëg man 11h laa jógee marché yow fekkoon bi fees del ndax man bi ma xëy suba nee naa frère sœur bi ana diw la munuma espagne ko est-ce ci kaw xool nga ci kaw. moo ma ne ko parce que démb ci guddi dégg naa ko muy yuuxu mais dama tiit mais ni ma ma génn. mu ne ma ah gisuma ko de ma ne ko ah, ma jël sama si nga ma dem marché mais bi ma doon nee marché nag laa fekkoon bi fees dell fekk gendarmerie yëpp. te naa ba ma xamatuma sax fu ma nekk. comme guddi gi mi ngi doon wax ubbi leen ma bi ngay génn ci buntu kër bi romboo fi lu mel ne ay deret nii même fenêtre bi mu doon fëgg gisoo miir bi yëpp fi yëpp man li ma yeewoo gis naa deret bi. yow bi nga yeewoo gis deret bi ah, xam naa ni moom moo fi tudd deret bi mais xaw ma kan la après gis gisuma ko nag man dama ci laa dem marché ndax mën nga dellusiwaat ci laxaat lan nga xam ci moom daana bokk a ci xay xale yu ëyib yi doon def ay ay ay tooxi doona euh, ak di. moo xamal xamal ma ko dara wala xamal ma ko dara. dul baax yaru maanaam laa ko xamal jox ma cër. même suy wax ak seen waage su ma ñëwee su ko waxee noppi mu noppi. Mm-hmm. laa xam ci moom ma leen ci moom. danaan def léeg-léeg muy décoré ci kër dañ koy toog ndax xam nga affaire du xale yi dëkkandoo ak xale rek jeex na coow bu gën a fépp la am. Mm-hmm. jeex na. loolu laa xam si moom ah au juste nag moom xaw ma atam au juste nu mu toll mais warul nekk mag moom. diggante fi ñu koreyee ak fi ñu wax ni foofu la ñu fekk koor bi daanaka sorantewul dara euh, ndax amoo leen yéen njortu ci kan moo war a def lu mel. ii <laughs> koo xam loolu kay boo ko xamoon kay da nga fay jubal directement mhm. loolu doo ko xam mënoo ko xam. moo ko xam. tey si tey ban yëg-yëg ngeen am. ñun am lu leen naqari lañ ko fekk tamit aussi. ñëpp am lu leen naqari koñ bi fii kenn waxul sama morom nag ñëpp a jooy ñëpp a jooy ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp surtout man. vraiment fàttali ñu tur bi Abdou Lahad. sa tur Maguette. Maguette Ndiaye. Ndiaye benn kër gi nga ci kaw Maguette ñu ngi lay jaajëfal.